salaamaaleykum euh, univers info TV ak yéen ñi nga xam ne yéen ñuy topp à travers univers di leen euh, mbégeel bu baax a baax di am contentement ci yéen waaye tamit di euh, chaque jour muy nekk mbégte di ànd ak yéen comme ni ñu amee habitude di ko wax tey nag dañoo ñëw seet si sunu moment boo xam ni nee naa la œuvre la ci wàllu askan œuvre la ci li nga xam ne moo di éclaircissement ci ay xeet ndax tey ji am na fu jamono toll maanaam bëri na ay polémique ci affaire dañ ñeeño bala may sa ñeeño bokkuñ caam ah yooyu yëpp nag leeral ñu ko ak tamit différence yi nga xam ni am na ci ñeeño ak nan la ñuy xàmmee doomu ñeeño dëgg-dëgg waaye tamit doomu ñeeño bu dégagé rek nga xam ni kii doomu ñeeño la ci waxin ci doxin ci jëfin ci solin loolu lépp moom dafa ñëw pour leeralal ñu loolu parce que tey am na ab série boo xam ne mi ngi passé ci télévision yi te gaa yi mi ngi koy indil ay polémique am yenn yuñ ciy wax donc yoon la univers info wàcc ci suuf daal leen di andi ay point mu leer nañ nañ donc sans am ci lu leen leeral waaye ngir ngeen am ci li nga xam ne moo di ay jàngal maman as noo def. waaw ci jàmm. Mhm. naa la F. Mhm. baa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax na da dugg ci nag garde bu rëy. Mhm. ñu garde ñee bala mañ tëgg dawul mbaar moom nga laajtee. soo déggee ñu naan tëgg dawul mbaar mooy ñeeño bala mañ ñeeño yëpp en général ñu nga ca mbaar ma di tëgg doomu ñeeño yàgg am jom nag yàgg riis askan yëpp riis dëgg la mais ñooñu noobul la mm-hmm. ñooñu dëgg mm-hmm. noobul la mm-hmm. soo ko gisee sans ñu lay wax kii fan la bokk bu fekkente ne xam nga nit dëgg la soo ko xoolee rek xam ne ñeeñu la ci ni muy doxee ni muy réagiré ak sañseem ak bëgg boppam ak gëm boppam bokk na ci doomu ñeeñu ñeeño gëm na boppam mu daal di am ñaari facetu ñeeño ñu seet mm-hmm. ñu ñu gégg gars yi di ko wax mm-hmm. lu ci mel ni Thiam Demba Bokun mm-hmm. ak Thiam Bala Maysa lan mooy seen différence ñaar yooyu Thiam Bala Maysa mooy caami tëgg parce que sant dëkkul fenn am na caam boo xam ne caam tukkulóor la xam naa man ci sama gàtt xam-xam bu soriwul daal yaakaar naa ne tukkulóor boobu moo tax ñu naan caam ndax sant dëkkul fenn mais boo déggee ñu naan caam bala mañ sa ñeeño bala mañ sa la pire parce bala mañ sa dëgg mu ngi ci jaay bijou mu ngi ci jaay or mu ngi ci mbaar di dëgg mhm. pays boo wàcc nag doomu ñeeñoo nga fa ñëpp nga fa de mhm. mais doomu ñeeñoo nga fa mhm. di yëngu ci lu baax bëgg lu baax doon lu baax man mi di wax ak yow doomu bala may sa piir laa moom i faal di sama baay nday njariñang di sama baay ku ma doon seet ji danga may seet ci diggante Kajoor ak Bawal soo demee Jurbel di nga ma fa bàyyi sama kër maam ndax maam Kunta Ñang ñu bokk ak sama papa benn papa kenn du ko laajte ca njaareem dëgg la foo ne Kunta Ñang ca njaareem ñu ne la ak riis bala may sa la Mm-hmm. macha allah bala may sa yëpp riis yëpp riis nañ nag mm-hmm. benn askan ku tagg sa bopp rek doo juum mm-hmm. waaye askanu ñeeño moom macha allah riis nañ nangu nanoo liggéey am na jom loolu moom yàlla def na ko pays boo wàcc États-Unis Côte d'Ivoire Abidjan ñeeño yaa nga fa dëgg la fi mu ne tey soo duggoon Abidjan da ngay sama sang bu riis ba muy euh, kii Numbe Ñaa Numbe Ñaa nijaayam da fekki woon Abidjan ba nekk Abidjan nag ba tey Mm-hmm. nekk nag tëgg dawul mbaar bu am jom macha allah. Mm-hmm. soo duggee États-Unis mm-hmm. dan dégg ñu naan hôtel Samba. hôtel Samba ña ngi ci États-Unis ku ñuy wax Omar Niang. sama doomu nijaay. moom moomoon hôtel Samba. tuddee ko sama maam bi jur sama papa. kon macha allah ñee ñoo yàgg naa riis. te Youssou Ndour bam ñu wayee xam na ne ñee ñoo riis na Fatou Guewel way ñu xam na ne bala may sëcc ku riis la. te ñun macha allah nag askan wi ñu bokk tagguñu suñu bopp de. mais riis yu duwaale di ko xam. ci riis nga ko xam mm-hmm. parce que li nga donn rek moom ngay xam mm-hmm. kër ñeeño boo fa duggee mm-hmm. soo xoolee rek wala suñu yàkkee añ macha allah mën ngaa xam ne ñii lii lañ doon saa ñu wax la ko gëm nañ seen bopp daal macha allah nangu nañoo liggéey am nañ jom mais ñeeño ci biir ci biir ñeeñoo est ce que ñoom seen biir war nañu xeebante maanaam da ci am ñu ci gën a kawe am ñu ci gën a suufee ndax boo xoolee série bi ñuy seetaan euh, à travers Soumboulou ngi wax que ni Euh, bàyyi ko mu tëdd ndax yaa ko tuddee ñeeño mhm. te ñeeño da ngeen di faral di wax tëgg dawul mbaar mhm. maanaam dañu tëdd ba mu naaj mhm. ñu daal di jóg jëm ca mbaar ma maanaam daal teel a yeewu nekkul ci ñoom boo gisee sax mu ngi wax naan jom beeg yooyu est-ce que tey loolu ah, da nga koy puuf ah foofu juum nañ ñeeño moom bu fekkente ne dafa am busigéewam di liggéey di tëgg jëlay employé ñu koy liggéeyal su ko neexee sañ naa tëdd ba mu naaj parce que am ñu mu bàyyi place soo duggoon Massa Zeng tey jii soo déparé mbaaru Ahmed Guissé Mm-hmm. su ko neexee mën naa tëdd ba mu naaj parce que am na ñu ko fay xaar mu toog lijjanti boppam sa xel dal nga am ñoo bàyyi sa ginnaaw am nga mm-hmm. sañ-sañu nga nelaw mm-hmm. mais ku am jom te yoroo dara yaakaaruma ne ah xanaa xel mu gàtt mooy tax nga tëdd di nelaw waaye daal xam naa ne sooy xool fu baax bëgguñu xool la fa war ngaa nangoo teel a jóg te am jom man sama gis-gis man ñeeño man man li ma gis gise naa ko noonu. Mm-hmm. mais ñoom seen biir ñoom seen biir ñeeño dafa am ñu ci gën a kawante wala dafa am ñu ci gën a suufante maanaam ci ay ask ci biir ñeeño dafa am ay askan yu gën a kawante ak yu gën a suufante. xam nga am am moom yàlla moo koy maye. am mm-hmm. am yàlla mooy maye am am man ngaa nekk ñeeño te yàlla tuddul ci nga am doo am parce que yàlla mooy maye te tànk nag yaa ngi dund nag di gëm sa bopp dara weesul ci doomu aadama Njaay. Mm-hmm. waaye daal ñeeño bu gëm boppam dëgg nangoo liggéey xee boo dara lu may teg ko ci yoon di liggéey ah man ngaa ris ba ku la gis du la yërëm loolu moom am na ci ñooñu. Mhm. waa côté boobu comme par exemple nga sant caam ma sant caam. Mhm. Euh, maanaam nga am maanaam sa sant ñeeño maanaam mhm. gën a fort sama bos comme par exemple nekku ci côté xaalis sax mais ci côté géñoo maanaam ci yax bu rëy bi es que loolu amante na ci biir ñeeño. waaw am na ci ñeeño nag ndax ñeeño moom en général moom ci yax bu rëy lañ judd. parce que seeni maam danoo teel a génn dem Côte d'Ivoire Abidjan Bénin fu ñu jaar fa man sama papa Cheikh Fall jaar na Abidjan nekk ñeeño bala may sa ba ni mu ñibbisee tey jii. ñooñu daal macha allah daal boo gëmee sa bopp moom. Mhm. defe naa ne doo ko rëccu daal ci doomu ñeeño. yan façon ñeeño moo am maanaam ñeeño bu ñuy bàkkantalee nan ak nan ak nan ak nan. ñeeño caam am na gise am na kase am na. ku ne sa sant rek lan lay dàkkantale. Mhm. jum am na. Mhm. joxaane am na. parce que ñun waa joxaaneen ñi mënuñu cee génn waa kër Ibadeer Thiam ñun mënuñu cee génn parce que man tey jii ba ma doon seet bu la neexee dem Kaolack seet ma fa. ndax yaayu Ibadeer Thiam ak sama papa ñoo bokk néegu ndey. kon soo ma seeti woon Kaolack boo nee ñeeño yi sant caam dama cay bokk soo mhm. duggee Bambey ma bokk ci boo duggee Touba ma bokk ci mhm. foo dugg rek ci dëkk boo xam ne ay nit nga fa rek soo fa duggee ñeeñoo nga fa gëm seen bopp nag nangoo liggéey mhm. waaw man mi da bala mañ salaa waaye day su ma xëyee daal maa ngi sama kër lijjanti sama kër mhm. mais su ma añee ba naan sama lewal ak deux mhm. lekk sama ceebu ñeeño mhm. yaakaar naa su ma ci tegee tuuti damay jug dóori waar parce soo bëggee am jom bëgg a tekki dara ci réew mi soo nangoo wee liggéey defe naa di ci génn loolu daal bokk na ci ñeeño moom waaw lan mooy seen différence ak géwal dañuy ay doomu ndi jaay doomu bàjjen lañ wala entre ñeeño ak géwal ak géwal non askan la rek yëpp la askanu géwal it noonu a a mooy gëm na boppam macha allah moom góoru ñeeño boo gis mm. bu nekkul ca mbaar ma mu ngay yëngu ci bijou ki mm-hmm. na tey boo doon jënd bijou tey dañ la naan demal ci sëñ Modou Niang ñu ne demal ci Amet wala ñu ne demal ci Laxaat Gise mm-hmm. te ñoo ñu ñëpp nag ci alaaji kër ndongaloo lañ bokk ci ñeeño mm-hmm. yi lañ bokk euh, ñoom moo géwal lan mooy seen différence non dañoo nekk géwal rek ñi nekk ñeeño da ngeen di mayalante wala da ngeen waaw dañuy mayalante bu ñu xewlee ñeeño yi ñu géwal ñooy may ñeeño yi géwël yi ñooy may ñooy may ñee ñooy ñoom bu ñu xewee loolu ñun ñoo ñuy may teraanga la daal mm-hmm. waaw ndax lépp teraanga la ku lay teral war nga koo teral mm-hmm. noonu rek la askanu ñeeño nag ak géwël tëdd ndax ku mm-hmm. lay teral rek war nga koo teral koy ñëw ci bésam mu di la teral kon su amee bés nga teral ko wàññiwul dara ndax teraanga moom mooyul kenn Mm-hmm. kenn du ne man dañ maa war a teral rek warumaa teral kenn ku lay teral war nga koo teral mm-hmm. man ci sama gis-gis man mm-hmm. ndax teraanga moom benn rawu ci morom bu njëkk dañuy wax ne dafay yeete mais est-ce que théâtre tey jii war na war na war na yee ay ay genre xeet comme par exemple mu xeeb xeet bi xeeb xeet bale est-ce que loolu nit kuy théâtre tey war na koo jàllale ci télé ah am na mën na ko jàllale mais na xeebaate moo baaxul parce que àdduna moom yàlla rek mooy maye te kenn ku ci ne luy sa wërsëg bala ngaa dee di nga ko jot kon mhm. xeebaate baaxul mhm. parce que koo xamul fu ñu ko juree mhm. du yoon nga di ko xeeb te nit mën nga ko xeeb tey ji ndax yorul dara ëllëg yàlla may ko loo xamante ne nii yow sax da ngay njéemi ci mbiru yàlla ndax yàlla moom lu ko sopp mu def ko loolu moom yàlla def na ko xeebaate moom baaxul ndax yàlla moom mooy maye mën na laa xañ say sumu may la teraanga joo xamante ne nii danga naan man sax lii lan la fooguma ko woon sama àdduna yàlla hmm. mooy tëddale noonu doomu aadama njaay kenn du ko xeeb parce que ñëpp a yem ci yàlla hmm. ku fi jóge tey jii amul bàmmeelu ñeeño amul bàmmeelu géwél ñëpp lañ boole hmm. moo tax xeebaate amul solo affaire askan yi sañu bari dañ koy dañ koy bañ ndax nga sëyeeg ñeeño bi wala nga sëyeeg géwél bi moo gën tubaab bi ndax tubaab bi xamoo fu mbokk te boo ko doon seeti tey ji laajte maamam nga xam fan la kon xeebaate amul solo mais tey jii nii lan moo tax ñu naan géer warut a sëy ak ñeeñoo ah xëy na seen xalaat moo toll foofu ndax am na ñoo xam ne dañ naan fanaanoo tëgg day ume am ñoo xam ne dañ naan man duma fanaani kër géer ña te loolu du dara ñëpp yem ca yàlla. fanaanu kër tëgg day ume waa am na ñu koy wax duma fanaan kër tëgg am na ñu koy wax am ñuy wax man séquma ak tëgg dara duma ko may jabar xew la may ko laa séq ak moom mais yàlla mooy cërale ku ne fa nga war a bokk rek fa la la yàlla boole yàlla moo defee noonu. Mhm. kenn du tànn fooy juddoo. Mhm. ku fi ñëw rek yàlla moo xam yow fa nga war a bokk mu boole la fa. Mhm. loolu la yàlla ñeeñu ni mu riche. Mhm. koo ci gis tey jii nii bu defee or nga bëgg bu sañsee nga bëgg. Mhm. Ah? te tamit sëy dañ naan na la yor mën laa yor yiir la dëkkoo la dëkkal la mm-hmm. du loolu lañ ci ut te foo gis tey askanu ñeeño koo gis ni kii ñeeño la nga gis ci moom set civilisé mm-hmm. gis ci moom bëgg boppam kon lan mooy problème bi ndax ndax ndax boo xoolee yaa ngi naan sa biir wax du ma fanaan kër ñeeño daf may daf may daf may um mm-hmm. affaire yooyu noonu est-ce que ñeeño tamit bokk na ci kuy ume ñeeño ah, ni ñu xamee riche bi seen xalaat moo toll foofu rek parce que ku nekk xëy na li nga dégg wala li nga téye rek moom ngay demee waaw est-ce que mës na ci dund benn histoire boo xam daf la marqué ci côté boobu ay du ma fanaan kër tëgg du ma def kër lii moo xam ni dund nga ko ci mu metti la nga dégg ko ci sa géer man nag mosuma ko dégg nag ci sama géer mais damay toog ay nit di wax ne ñoom seeni géer ñoo wax loolu mhm. man leen est-ce yéen yéen mu wax leen loolu ñu ne ah ñoom ñoo ko wax man ne waaye xëy na xalaatam foofu la toll mais loolu du dara àddina amul solo mhm. àddina amul solo am na yoo xam ne jarul sax di détail Mm-hmm. gëmal sa bopp rek gëm ni nga doon mm-hmm. ku nekk fa nga bëgg a dugg rek wala fa nga bëgg sa doom dugg fa rek loolu la mm-hmm. yàllay dogal mais daal armeelu ñeeño moom amul fenn ak armeelu géwal ku fi gaañu tey jii amul géwal la amul ñeeño la bu dee Touba nga bëggoon dañ lay yóbbu Touba bu dee Tiwaawan nga bëggoon dañ lay yóbbu Touba foro bëgg dañ la fa yóbbu ndax tarixa yi ñëpp ànd Touba ak Tiwaawan ñaseen laayeen ak tarixa yi fi nekk yëpp lu mu doon ñoom sëriñ si dañuy yëgoo te mhm. ku ci nekk Touba yaa ngi dégganteeg waa waawan ku ci nekk feneen yaa ngi dégganteeg ñoom kon mhm. àdduna yàlla mooy boole ay nit dëgg la loolu la yàlla dogal ku nangul yàlla dogal doo sonn mhm. ci ci ci série bi ñu ngi seetaan mu wax ni àndu nawle dafa foor maanaam tey jii nii sa moroomu ñeeño ci côté mystiquement sax mi ngi wax naan géer warta toog ci lalu ñeeño parce que loolu mooy causé sax kee bu ëmbee mën na tuur ëmb moroomam est-ce que loolu am nga loo ci wax te loolu dëgg la maanaam ci côté ñeeño bi ah xëy na ko ci ñu ko dund mais man de mosuma am histoire bu mel noonu te mosuma ko dégg tamit mm-hmm. mais ëmb moom léeg-léeg nga ëmb nit ki su fekkente ne seen affaire àndul nee nañ soo ëmbee toog ci lalam après da ngay avorté loolu daal moom dinaa koy dégg moom comme àndul comme nan expliqué ñu mu la non nekk ànd day nekk yow da ngay nekk en état mm-hmm. sa morom am doom nga seetu ko bu fekkee sa deret dafa fiir soo ci jógee da ngay avorté mm. loolu moom gis naa sama copine boo xam ne moom loolu dal na ko Mm-hmm. nekkul téere bu ñu takk wala non nekkul moom takkul téere sax moom xamul woon sax ne dafa nekk en état mais dafa am mm-hmm. doom rek na koo seeti rek mu dem mm-hmm. waxtaan mu di ko wax man ko man de sama yaay daf ma daan wax ne ma ma wasin su fekkente ne yow bokkoo ci 100 pour cent da nga yónnee sa seet su ngéntee ba bés dellu si ba ñu tuddal ko doomam ba pare nga doog a dugg nga xool ko man daal loolu moom sama yaay daan na ma wax loolu te ba tey jii foofu laa teg sama tànk loolu doon doon sama nit soo amee doom ñu wax ma ko du ma tëb rek brusquement dugg sa nekk nan ngay xoolee pour dem seeti ji ko damay jënd samay bagage yónnee la ko ne dafa am lu ma téye après dinaa ñëw mm-hmm. après su passé ma doog a ñëw xool ko parce que mm-hmm. man sama mère moo ma daan wax loolu mm-hmm. moo ma daan wax ne ma wasin boo ci bokkulee cent pour cent waroo ci ba ci biir parce que ndogal dafa gaaw maanaam boo nekkul mbokk bu ko jigéen wax waaw loolu moom chaque jour daf ma ko daan wax ma di ko bàyyi xel nag ba ñuy nekku fi mais ba léegi loolu dama ciy bàyyi xel parce que ku la mag wala ku la jur dina xam loo xam ne yow xamoo ko Mm-hmm. mais ba nii nii nii. Mm-hmm. man duñ ma a diw am na doom rek ma départ uti fa di ko seeti. dafa mel da nga ci dund lu métti ndax sa yaay dafa mel sa xarit la. non sama yaay sama xarit la. ndax yaa ngi commencé. sa mm-hmm. petit di di te lu am ci àddina rek. wala ñu mën maa boole ci dara rek moom moo tax. parce que daf may wax toogal ni ma wax la. àdduna nii la ak nii. parce que Seydina Mohamed. nan nga dund sa yaay mu marke la. sama yaay mu baax lool. parce que fi mu ñu tegoon rek foofu lañ tegu. bu boole su ñuy frère nag ñu baax mu leen xamal ne leen ñii seeni rakk lan ñuy dund ak ñun dund bu rafet. Mhm. ba tey jii muy rafet te dara ñaawul. Mhm. ñun amuñu benn problème lu ñu soxla ñoom dañ ciy taxaw ñu ngi liggéey de. Mhm. waaye lu ñu soxla rek ñoom dañ ciy taxaw. ñàkk yaay dafa metti xam nañ seen i jigéen nan waaye ñàkk waajur nag dafa metti nga nekk jigéen tamit. parce que daan gis sa yaay ba gisatoo ko dafa metti te bëtu yaay. benn la ci doom. ku la ne nag dinaa la xool fa la sa yaay doon xool dina la fa xool de mais dina am lu manqué. parce que un cent pour cent léeg-léeg dara metti la. munoo ko wax sax koo bokkal ndey ak baay sa yaay rek nga ko mën a waxanteel mais adduna nag moo tëddee noonu. Mm-hmm. dara dundul abadan lu mu doon day jeex. Mm-hmm. mais sama yaay jër ma koy ñaanal yàlla na suuf daaru salaam. Mm-hmm. dina flaayam. kilifa ku baax. ku bëgg lu baax. ku am ñëpp. yàlla def na nan nga mujjee weccoo ak moom yan kàddu. am leen kilifteef te seen mag yi fi nekk bala ngeen di def ngay yaru. da ngay mhm. denc sa bopp. Mhm. parce que ñëpp ñu laa boole bëgg la mhm. mais soo nekkee ci lu baax. gëm sa bopp. bàyyi sa bopp ak yàlla. lu ñëw day paase. waaw loolu yàlla def na ko. yàlla jël bakkanam yàggul dara. ci yan circonstance la ko fekk. non dafa tawatoon waa tawatoon na nag parce que dafa amee woon gulkum. problème mu bët la amee woon. mais nag dem ba gisatul. xam nga loolu day metti Mhm. ñu yor ko nag mais mosuñu ko bàyyi toujours ñu ngi toog ci moom di ko wettali parce waajur loo ci def doo ko rëccu mhm. waajur moom mhm. loo ci def doo ko rëccu te bu la sa waajur ñaanalee yor ngay wut sëriñ dara mënulaa fexeel jàpp la dara mënulaa fakkatal nga daanu loolu moom yàlla def na ko ci àddina nga gëm sa bopp trop di liggéey di jaay cuuraay tey ñi la xamul caaro yi bariwul dëgg la yaa ngi ci biir néegu sëy di ko mm-hmm. defar. Mm-hmm. Uh-huh. Mm-hmm. di boole ay nit di jaay parce que boo xoolee cuuraay lu neex la. waaw lu uh-huh. neex la lu bala mañ sa bëgg sax. tey booy booy dem di leen di jaay say géer. di leen jaay cuuraay. maanaam ci yenn anam nga koy demee maanaam fekk nga ay sëy defar ko. fekk nga kër gu naqari nga defar ko ban moo la ci gën a marqué ci yooyu. mais nit moom soo bëggee nekk ci àddina. da ngay defar boo fekkee lu yàq rawatina ñeeñu ak géwél. dëgg la toujours am na sama benn partenaire boo xam nit lu mu fekkewut wala loo xam ne soo ko ko nettalee mu indi coow. Mm-hmm. kooku bëggu la parce que ku lay nettalee loo xam ne ef soo ko déggee. Mm-hmm. bëgg maa songu xeex wala bëggatoo maa gis loolu ko la koy nettali bokkul ci sa soppe. dëgg la parce que nit du yee fitna fitna kenn du ko yee loo fekk amul jàmm. Mm-hmm. da nga koy jéem a defar. soo ko mënulee nga xam ne nga ciy taxawee ci ñaari côté bi ci def lu rafet. bis bu ko yàlla defee rek doo ruus te doo ko rëcc. mais fekk diggante mu am problème. chaque jour yaa ngi def loo xam ne day yokk problème loolu baaxul te yàlla rëbb na ko yee fitna. Mhm. fitna kenn du ko yee. lu dul jàmm jàmm da lay gën. Mhm. lu dul baax baax gën na la. lu baax doo ko def ba rëcc ko. lu gën lu bon rek la ñuy rëcc. parce que boo retouré da nga fekk gaa yu baax yi raw nañ la te doo tooleen mën a dab tax àddina. Mhm. lu dul baax rek mbaax gën na la. ñeeñu ñu xam ko ci defar. waa ñu xam ko ci defar. ñeeñu ak géwél. dafa war defar. ak ku mën a doon mm-hmm. parce que defar lu rafet dañ ne fen buy defar mu gën fen buy yàq mm-hmm. loolu dañ koy wax mm-hmm. te nit dafa war di bëgg jàmm dëgg la loolu mooy nit mais di ànd ak nit muy ànd ak keneen ñu am problème nga taxaw ci diw nee na nii taxaw ci diw neena nii da ngay gën a yàq mais doo defar te nag defar àddina moo gën yàq àddina lu ñaaw amul solo xajul ci àdduna bi dafa gàtt dund gi macha allah léegi gàtt na kenn xamul sa tey kenn xamul sa suba. Mm-hmm. da ngay toog ak neen waxtaan balaa ngoon ñu ne la diw na. Mm-hmm. kon lan mooy àddina. Mm-hmm. te indi woo fi dara bi ngay ñëw. te sooy dem doo ko yóbbaale. kon lépp lu ma doon taraa ngay àddina la. nañu sangu ba set lekk lu neex tëdd fu set. def lu baax bëgg lu baax mooy àddina. man boog noonu laa gisee sama àddina. dox ci lu baax def lu baax yéene nit ñi jàmm. soo yéene nit ñi rek am jàmm. mais nag di ànd ak nit te yéen a ko jàmm te nga ne danga koo bëgg chaque jour ngeen di ànd mu lay gis. Mm-hmm. te soo sañoon tey jii mu surux loolu du àddina. Mm-hmm. dara jaru ko ci àddina. déedéet lu dul baax daal. mbaax mm-hmm. da lay gën. te lu baax kenn du ko rëcc. dëgg lu bon rek la ñuy rëcc mais lu baax kenn du ko rëcc. jaayum cuuraay mi da nga ko dond wala naturellement rek. da nga ko doon créé say doon parce que sama mag bi des màkk nday mbaw yaayi Mansoor ñaa jabaru ñaa mbocc Mm-hmm. ñun suñu duggee si njaayu cuwaay tey moom moo ñu ci dugal parce que moom loolu la daan yëngu mm-hmm. ci la daan liggéey mbaw ngaa la di ci am lu nekk mm-hmm. di ci jàppale famille yàlla dogal nag mu dem màkka des fa mais jàmbaar ju nangu woon a liggéey ku gëm boppam ñun moo ñu dugal ci njaayu cuuraay dama day astu jaay leen cuuraay parce que cuuraay da ngay bari ay soppe te foo tollu da neex da ngay xeeñ lu neex Mm-hmm. soo rombee dinañ xam ne romb nga mm-hmm. soo retouré dinañ xam ne retour nga te la ma waxoon nag maw ngaa la yàlla na xeppee ajjana waaye gis naa ko mm-hmm. lu ma ci waxoon rek gis naa ko aw ma ci 100 pour cent de mais maa ngi ciy faj sama soxla ku ma ci bëgg a teral it maa ngi la ciy teral loolu moom yàlla defal na ma ko ci ma di ko sant yàlla nag di ko ñaanale ndax lépp moom la moom ma ci dugal moo tax ma di ko def su ma ci amee dara grâce que moom moo tax ma am ko ndax saa toogaan di waxtaan loolu la ma daan wax Mm-hmm. defal nangam nangam soo koy jaay nit ñi dañ lay bëgg parce que parfum cuuraay dafa neex. Mm-hmm. su ma ci dee digg fenn rek moom moo tax. Mm-hmm. yàlla def na loolu. mu mel ni temps Astou Fall jirim la. ndax boo xoolee pet na yaayam. magam ak papaam. des fois doo toog nga wéet. parce que ñoo ñëpp gisatoo leen. wala nga am problème mu metti du la dal. non du ma dal nag parce que samay naa nekkuñu fi mais sama mag yi fi nekk fi papa waroon a taxaw wala yaay taxaw feneen taxawee nan fa. man léeg-léeg damay xëy tëdd di nelaw ba 10 heures ma doog a yeewu di taal añ bu sama xel dalul woon ñi ma nekkal jàppale wuñ ma kon du ma mën loolu mais macha allah jàppale nañ ma su may liggéey xanaa pour sama bopp moo tax may liggéey mais du pour kër moo tax may liggéey. Mm-hmm. loolu moom yàlla def na ko. Mm-hmm. Mm-hmm. ana lan ngay wax tey jii ñi nga xam ne ñoo toll fi nga toll. nekk situation bi nga nekk maanaam gisatuñu yaay wala papa bu leen di gindi. nan la ñu war a comporter woo. mais boo amulee sa yaay mu nekk fi war nga am sa sœur bu fi nekk wala nga am sa mbokk mu sës ci yow nga def ko référence mhm. parce que référence moom weesuwul nga nekk ci nit ñi di xool lu baax ak lu bon ku ne xàmmee na ko mhm. moo tax xarit du dëkk fenn ndax léeg-léeg nga fréquenté fenn gis fa nit ku baax te soo bëggee lu baax nit ku baax kooku da nga koy bëgg mhm. kon kooku soo ko dee topp ba dem këram di waxtaan ak moom damay ragal ne doo ko rëcc comme moom lu baax nga gis ci moom mu di ko def soo ko toppee doo ko rëcc man de du toppandoo lu baaxul waaye lu baax fu ma ko gis ci doomu aadama jaay ak foo mën a nekk Mm-hmm. dinaa def roykaay ci yow. Mm-hmm. waaw di la topp di la xool su ma ma nee di wéetoog yow di waxtaan dinaa koy def. Mm-hmm. parce que lu baax dafa am solo. loolu moom yàlla def na ko. tey euh, sa digganteeg sa nawle ñeeño yi. yéen a ngi demalante di dikkalante. waaw ñu ngi demalante nag. bëgg suñu bopp nag ñun ñëpp nag ñu bëggante. ku ci xew xewle yëgal ko sa morom. bu ñu dooree waar nag ba ñëw sañ sa ba jekk nag ñëw ci bés bi. ambiance ba mu neex ñu ndawtal ba mu baax. loolu lañ xam. ana ban message ngay bàyyi rek balaa ñu tëj émission bi maanaam tey ji yenn théâtrekat yi mhm. yenn ñi nekk ci réseau yi mhm. di tuutal askanu euh, euh, ñeeño mhm. wala ñuy sànni yenn kàddu ñeeño wala des fois sax ñu leen di xas ba ci jóge ay saaga ci ay réseaux sociaux tey ñooñu lan nga leen di wax en tant que ñeeño non loolu yeete la rek parce dafa am loo xam ne su la ko nit dee def su fekkee borom jom nga dina yokk sa ñoom jom moo tax ñu naan noonu am na fu mbaax parce que nit bu fekkente ne yow yéenewu la dara lu baax. Mm-hmm. su fekkee yow nite nga. Mm-hmm. nga jéem a teg sa tànk ci loo xamante ne nii. Mm-hmm. moom du dégg dara lu mu lay reetaani. man ci sama gis-gis man. man boo fekkente ne danga nekk ma nekk nit. te yow xamoo man maay kan wala la ma nekk neexu la. ah ma dinaa teg sama tànk foo xamante ne nii. la ngay wax ci man doo ko gis. am na solo. Mm-hmm. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. di wax ni que macha allah nekk na ma maman joo xam ni bëgg na boppam te lépp fu cuuraay neexee rek wala mu gunguni moom moo koy jaay donc ñëw leen ah day defar néegu sëy yi yor na cuuraay yu neexi xet gu neex gi ndax macha allah dama koo naw mu ñëwee suñu buntu kër ca buntu kër ga la xet ga di commencé mu daal di fas yéene yéeg mu bëgg boppam lool nag bu mu sooroo nga kontaan ah macha allah temps bi ana ngay tàggatoo maman. kontaan lool nag di la ñaanal parce que li nga def nii tey jii du man kese maa fi doomu ñeeño déedéet mais maa taamu. Mm. xam ne nag damaa bokk ci yow. Mm-hmm. nga xam ko lool. Mm-hmm. nga xam ne man ci yow laa bokk. ci mm-hmm. sa wàllu kër yaay. mën naa ne sa yaay laa. ci sa wàllu kër papa mën naa ne sa bàjjen laa. ndax sa bàjjen Aram Fall fu mu mës a jëm sama yaay lay àndal jàmbaar jooju. dañ koy ñaanal yal na àllaaxira di noflaayam. sa bàjjen joor aussi noonu. sa maam noonu yow nga bokk fu baax. gëm sa bopp. yërëm sa yaay nag bëgg ko lool mhm. jayu ma la de mais li nga def rek laa wax su bés jotee da ngay jàppale sa yaay mu sañse lu rafet mhm. di def lu rafet lu baax faal mhm. mais na danga koo doon parce que fa nga bokk la fa nga bokk ah sa maam yooyu ba ñuy riis riis xewul dañuy riis ah riis xewul nag faal nga gëm sa bopp nag dama lay ñaanal yal na la yàlla defal jàmm. Mhm. ñu dund ba nuy yendoo sa bés. ñu naan F mooy mariage. Mhm. yàlla mën na ko ci barke xaadimul xaddim mhm. man yaay sëñ Saaliw Alaaji Fàllu maa la ñaanal lii. balaa yàgg dara. yal nañ ma woo ne ma Esfa lañ indi première cadeau. jërëjëf yàlla mën na ko yàlla def. kontaan naa ci ñeen bi ngeen def kër ñeeñoo yi tey jii. kër ñeeñoo mais su ma sañoon na ngeen yéen du xaar añu bala mañ sëy uh-huh. bëggoon naa lool de. <laughs> loolu la ñuy def incha allah merci beaucoup maman ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement ci yéen daw leen ngeen abonné aimer liker partager avec Amath moom lépp lay wane merci beaucoup.